salaamaaleykum wala Libaas euh, Samba président euh, du coordonnateur mouvement Cambérène moo nu ñor. kon Libaas ñu bàyyi la rek nga dikkaat en détail ci li fi xew. waaw euh, bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bi nu sante yàlla ñu ngi julli ci yonentam bu tedd bi Seydina Limaam alayhi salaatu wa salaam ñaanal Seydina Baay Abdoulaye Thiaw ak njabootu Baay Laay gépp ñu yàgg fi loolu te ànd ak wér. tey danoo xëy ak naqar naqar boo xamante ni vraiment xamuñu sax na lañ ko mën a waxee. te li ko waral du lenn lu dul rek chantier Azur bi nga xamante ni moo nekk fi au niveau de Cambérène ak entreprise euh, marocain yi bi nu xëyee la nu woo téléphone am benn oto du 406 gis ngeen léegi ci vidéo yi ñu koy yóbbu waa ji jël pont bi fële au niveau de Cambérène 2 ba mu jëlee pont bi parce que li tax mu mën a am accès foofu euh, pont bi amul benn du euh, amul benn du panneau de signalisation route barrée wala lu mu mën a doon waa ji engagé wu jël ko li muy daw xam naa bari mu jàll pont bi bi oto bi daanoo ñaari nit ñoo ci xëy dee sapeur pompier nag ñëw nañ ba jël leen police ñëw na def constat bi yóbbu leen pour def autopsie bi li tax mu metti mooy chantier bi chaque jour dañuy xëy di wax ba sunu baati day dee li tax ñuy wax mooy chantier boo xamante ni ay milliards la muy chantier état amul benn benn benn sécurité ku ñëw chantier bi tey nu la neex fu la neex ngay jaar fu la neex ngay génne sunu doomu dëkk yi dañuy jaar ni di dem géej dañuy gas ay kan yoo xamante ni plus de quinze mètres guddi gi soo fi jaaree mën nañ fi rey nit duwul ko fi te doo xam kan la boobaa mën na ni waadu Cambérène ñoo ko def or ko demewul noonu sance boo dem demal ci bertin bi mais dañuy mais gars yi dañuy baliser foofu baliser que kenn du am accès sànce bi sànce bi nit war fi woon am accès mais sance bi rek ngay ñëw xaw ma dañu yëpp ak du Cambérène wala Cambérène da leen wan ñàkk du wala lan la man dama bëgg a xam tey problème bi qu'est-ce qui lu xew parce que comité de suivi bi mënul di réunion ñu jël ay engagement ni dinañ baliser sance bi dinañ ko sécuriser saa yu xëyee dañuy arroser chantier bi tey dafa bëri poussière Macky Sall keroog bi muy dem euh, euh, du Malika laata muy jaar fii mais danoo arrosé tali bi ba mu tooy xepp xepp xepp xepp jël seeni ouvrier solo leen ay kaks yu bees dal na sécuriser solo leen ay gilet yu bees c'est parce que président mooy jaar ñu war ka war ne que tout se passe bi et c'est faux archi faux affaire bi c'est pas vrai keroog Macky Sall bi ngay jaar Cambérène li la woon du dëgg jour boobu kese la woon sànq baa ngi nii mais mais dafa am loo xamante ni mais dafa jaaduwul te loolu ñun dur ko seetaan tey lay rek nag ça cesse aujourd'hui tey jii lay deñ am na loo xamante ni boobu léegi ñun ñu koy ñaan nanu waxtaan woo na leen ci njëkk ak teraanga wuyuw leen nu wala faalewu leen nu ñun ñun am nañ suñu manière te dinañ ko def te Macky Sall dina yëg ni projet bi santé bi dafa yàgg ça dure te dafa war a jeex Cambérène li mu subir ci lii dafa doy chaque jour ñu répété ko li Cambérène di subir ci lii dafa doy du lépp lan mën a wax mais tey li am ñaari moor moo fi am barki démb benn waay noonu la woon scooter la yor dee bi mu dee fii naar bi ñëw dinu gëmloo dara waa ji dañ rey du sànni ko fii mais ñun duñ ay ñu nekkul ay dof quoi te chantier bi depuis le 17 septembre 2020 la reprendre bi ñu jógee audience ci ministre Oumar Youm mais mosunoo jënd suuf te vidéo yi yéen ñëpp yéen a seetaan muy préfet muy commissaire yéen ñëpp gis ngeen ta kenn waxu ci gendarmerie environnement fi ñëw gars yi wax ak ñoom def yëfutu sénégalais ñu dem seen yoon te ñun on a les te loolu day dañ dinañ xam ni Cambérène mosul ñàkk fayda te am nañu taxawaay loolu laa amoon di ko wax. sëñ bi ñu bàyyi la nga présenté wu nga dikk ak ñun mu mel ni yaa ngi woon téléphone ak commandant bi fan ngeen toll ci mbir mi. waaw bisimilah rahmaani rahim maa leen di sant di leen gërëm di dëggal li suñu coordonnateur man maa ngi tudd Seydina Issa fi may gën a commandant ñëw na fi effectivement biñ ko ko waxee li ma ko wax ci bu njëkk ba mooy moto bi daanu woon. naar bi daka bañoon mais lii moom commandant nangu nañ lii atama si kaw la jógee li si des nag yoon dina def liggéeyam kon nag ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg trop c'est trop entreprise bi li mu jël suuf boo calculé c'était des milliards ñun je parle en cause parce que man xam naa si wàllu suuf laay liggéey ñun nag wax nañ ba sonn wax nañ l'administration écrite dinañ def la ñu war a def yàlla baax na nag lii nag dootuñu ko nangu trop c'est trop c'est trop waaw ce matin nag sa fajar maa ngi doon dégg parce que maa ngi dëgg fii si ginnaaw maa ngi dégg gardien di wax naan y'a un voiture daanu na ci biir kàmba gi génn naa sax ba dawoo laajte mais gisuma bi ma génnaatee nag deuxième fois bi laa gis sapeur ñu extendoo bi ñu ñëwee si leen fekk mu nekk quatre pneus en l'air ñoom ñaari individu yëpp nekk ci biir ñu jàppale sapeur ñu génne ko tëral leen ñu ñaari xale ñu ngi leen di masawu sax foofu la ñu waroon jikko commencé ñu ngi masawu seen njaboot ci dafa metti c'est la deuxième fois muy am waa léegi ñun dañuy xaar keneen ki mu doon dee nekk suñu njaboot wala suñu doom ñu masawaat ko mu jeex non non trop c'est trop kii wax na ko Macky Sall bu mu fi waree ñëw ñun ñu ngi dëkk ci dëkk bi am na loo xam ne sax mesure d'accompagnement zéro zéro comme li wax ni à bu ñu waree dem am ñu war waxal mais du mujj fenn li na ñun dootuñu ko nangoo tey dootuñu ko nangoo ëllëg. waaw vraiment di wax rek ni yaa ah, commandant ñëw na fi ba ñoom def nañ du constat bi di wax ni lii lépp du photo entreprise bi la te incha allahu rabbi Euh, ñi fi ñi nga xamante ni ñi fi du xamante ni ñoom ñoo fi dee incha allah rabi du famille bi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk affaire bi ñoom dinañ dem ba tey jëy nii moo xam am nañ assurance dinañ ko topp dinañ ko topp ba ba entreprise bi dana maase ñi nga xamante ni ñoo fi ñàkk du seen baken parce que tey ñun mënuñu gis tali bi ak pont bi ni mu toll amul benn signalisation benn benn benn panneau de signalisation fi nekkoon keroog taw mi ngelaw li moo ka moom moo ko moom du daanal projet bu toll nii ay milliards mais mais loolu mais loolu dafa dafa ñaaw sa sax yow boo koy tabax xanaa dinga nga ko baliser asalaamaaleykum du projet état donc nag dañ bëgg a police def liggéeyam ba ñii nga xamante ni seen bakkan ñàkk na fi bakkan amul lu ko gën a foor mënul ñawaat mais ñu dédommagé du famille bi te loolu ñun incha allah rabi comité de suivi bi fi ne dinañ ko topp jusqu'à la fin te entreprise bi. dañ bëgg ñu jël seeni responsabilité parce que respecté wu ñu kenn respecté wu ñu Cambérène respecté wu ñu kenn man dama xamul Ageroute ak entreprise bi luy seen problème man xaw ma lan la da nga leen di wootu la faale su problème amee lan lay door a jël mais loolu au nom de quoi kon donc ñu ngi interpellé képp koo xamante ni du maanaam du kilifa nga jiite que monsieur le maire moom mooy le président du comité de suivi lii dañ bëgg a justice soit faite parce que am na loo xamante ni ñun dooruñu ko nangu di ko du ko du seedaan oto danaa ñëw fii wadda fii balaa ñi ñee yeewu naar bi jël lonk ko yóbbu ko pour bañ nit ñi gis ko mais du yoon tele bi amul lumière amul éclairage amul sécurité amul dara pour lan amul projet boo dem ci àddina mu demee nii mu demee à Cambérène ah naar bi ñëw na fi mais naar bi joxul cër kenn parce que dangay wax ak moom mu lay manque de respect keroog bi ñuy ci ba suuf ñoom di sàcc suuf si loolu sàcc suuf la bi ñawee di leen ko wax mu naan vous n'avez qu'à manifester moom du loolu noonu si loolu noonu maanaam loolu du respect lii da koy wax ak du xol bu naqari parce que saa yu nu génnee ñu ni Cambérène lan mooy problème bi te saa yu nu tooñee lan nuy dégg barki dem ba manifestation yi fii ñëpp ki ñëpp ñu teg nañ ci du seen bët ñëpp taal seen dëkk ba mu des Cambérène c'est parce que loolu concerné wu ñu mais lu jëm si dëkk bi nag bu nu laalee dina nu dégg fan nu war a déggee dawunu ci daayanu ci. te nëppatuwunu ci loolu dañ koy wax haut ba fort bañuñu ci dara lii dañ koy wax te dañ koy topp ba fu mu war a dem te di ngeen xam ne nag Cambérène jug na. Sofiane il s'appelle Sofiane responsable du chantier parce que ñun euh, coow li bari nag mais lépp lu ñuy xeex dañ siy teg suñu tànk làmbatuwuñu on a des preuves ce matin bi mu ñëwee ñu tëral néew yi dafa romb dem yoonam après maa ngi si kaw pont maa ko def pour photo ko mu daw après qu'est-ce qu'il mi ngi jël engin bi pour dem fa oto ba jaaroon médecin après la mort. loolu pour pour trouver que c'est normal parce que faale wuñu ni ñi kenn wax ñun nag trop c'est trop jàppewuñu see nit loolu wax ñu naan bu naree kaa faire ceci aw cela ñun ñu ngi def lu ñu war a def nag li si des nag duñ ko may ma sàmm duñ ko may ma demb même bi ñu évacué ñi avant police ñëw pour yëkkati oto bi moom si wàllum boppam moo bëggoon jël oto bi pour déplacer ko ni ko doo laal mu ne ma j'ai parlé avec le commandant ma ni ko tu n'as qu'à le président Macky Sall tu pas le droit de toucher cette voiture loolu man maa ko wax avant police ñëw la bëggoon jël oto bi parce que comme gi li wax def na ko ay yoon yoon nous sommes des témoins oculaires oto fi daanu balaa fajar mu jël ko yóbbu parce que il a les matériels parce que xam na ne li muy def bolu saa bi wax nii keroog bi ma xaalis ñëpp ko soxla mais nous sommes pas corrompus waxtaan wax dëgg sa la lii nag duñ ko bàyyi mu sedd duñ ko bàyyi mu waat sax ëpp na ëpp na trop c'est trop Cambérène moo taxaw pour wax ak Macky Sall la Macky Sall tu es le premier personne de la ville du Sénégal du MES waxal ak naar yi waxal ak naar yi wasalaam jërëjëf. kon mbokk yi gannaaw bi ñu dégloo ñaari responsable comité d'initiative bi nga xamante ni moom moo jëm ci développement Cambérène ci xew-xew gi xamante ni am na fi te muy tiis mu di ñaari bakkan. yu euh, tuuru ci accident goo xamante ne nii euh, d'après seeni précision Euh, euh, faute de responsabilité bi nga xamante ni entreprise bi nga xamante ni moom moo amee fii euh, chantier bi waroon nañ jël seeni matuwaay par rapport ak bërëb bi waaye yàlla dogal ñu génn àddina ñu ngi leen di jaale waaye nag li ci gën a am solo mooy fi mu ne nii nag nar ñoo maanaam croiser seeni loxo ci situation gi fi am danoo fas yéene interpeller njiitum réew mi ci boppam ndax jàpp nañ ni lépp mooma ndax moom mooy njiitum réew mi moom lañ war a interpeller ndax lii du c'est la première fois mu am fi yàgg na fee am ñuy ndëpp ndëppal waaye bii yoon du mu sedd danoo bëgg justice soit faite te ñoom population bi fi mu ne nii dañoo fas yéene arrêté chantier yi ngir maanaam naar bi nga xamante ni moom moo amee responsabilité wu euh, euh, travaux yi fi am mu daal koy dàkkal ñu jéem a xool naka la ñuy wutee solution ndax lii mënta continuer kon euh, information bi fu mu ci mënti yem rek danañ ko continuer ak yéen pour le moment nañu ko expliquer ci ubbi bi loolee li fi xewoon ci accident gu daw yaram gi fi am ci oto gi saaraan ba ñaar daal cee ñàkk seen bakkan te c'est pas la première fois mu am fi comme ni ma ko waxee sànq kon fu mbir yi yem rek danañ dikkaat ak yen indil leen beaucoup plus de euh, précision ñu nekkoon fi à à Cambérène euh, ci sànc yi nga xamante ni moom moo fi am pour euh, maanaam VDN bi nga xamante ni moom moo war a prolonger di leen jaajëfal ak waa Sénégal waxtu wu ne nii la rek ci xibaar yi ak ci xew-xew am ci réew mi ñu dikkaat ci ak yéen en